mais nag fekk naa fi aussi problème yoo xam ne moom la université de Bambey am. parce que ak lu ñu mënti wax ñoom xaw nañ leen fàtte ci yenn solution yoo xam ne yeneen université yi am nañ ko moo ko doon tënk tey day mel ni ñeenti problème ñeenti problème yooyu bu ci nekk ñu ngi ciy jéem a wut solution. bu njëkk bi mooy ñàkk xaalis bi ñoom nee nañ li ñu leen jox matul. pour ñu doxal ci at nee nañu sax dafa leen manqué 2 milliards ak lu teg. gouvernement bi. dinañ taxaw ba nga xam ne xaalis boobu moo manqué dinañ fexe nan lañ koy amee fii ak at bi di dee ndax université Alioune jëm beneen bi ci topp mooy le fait que amuñu calendrier académique calendrier académique mooy nga mën a wax ne école te bés bii lay tijji école bés bii lay tëj bés bii la def examen loolu amatul ci université Sénégal te amatul aussi ci Bambey te jàpp nañu ne problème yu bari yoo xam ne moom lañ fi am. ci le fait que année bi doxatul comme noonu mu waroon doxee ci la jógee waxtaan nañ nag ak ñëpp ñi fi nekk proposé nañ leen benn plan boo xam ne bu ñu ci toppee gëm nañ ne ren dinañ orienté ñi nga xam ne dañu am bag bu bees assez rapidement te loolu bu ñu ko defee. beneen bi mooy chantier yi ku wax université da ngay wax classe da ngay wax amphithéâtre da ngay wax néeg bu étudiants yi di fanaan yooyu yëpp manqué na fi. infrastructure boobu am na fépp nag waaye fii ci Bambey daf fi gën a doyee waar dernier problème bi mooy problème mu jàngalekat yi parce que bu étudiants yi di yokku te jàngalekat yi yokkuwuñu dañuy am problème